السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته وكل من والاه إلى يوم أن نلقاه فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي زدني علما نافعا مباركا بلغي léegi تي يونتبي صلى الله عليه وسلم موي معجزاته معجزه dafa bokk ci kamaliyaat waaye bokkul ci asaasiyaat imaana man nga ko boole ci nit nga ne mooy dàll walla mooy mbaxana mbaxana ci nit ki boo habillé woo ba pare pour nga sol mbaxana kooku ci kamaliyaat la bokk manulaa war a tere génn sa néeg dem doxi sa soxla waaye boo amul tubéy nag hada minal moo tax boo demee ci yonente yi mu'jizaat yi nekkul ci asaasiyaat ci kamaliyaat yi la lan mooy asaasiyaat ñeent la ci yonent ñeent moo war a daje ci yonent ñeent yooyu benn bu ci folleeku rek ñu ne kii du yonent matul yonent bu njëkk ba mooy as-sidq bés bu ñu gisee yonente bu fen ñu xam ne kii du yonent moo tax yonente bi alayhi salaatu wassalaam ba mu waxee ne caravane bi dina ñëw bés sàngam gaa yi xaw a am retard yàlla téye naaj bi parce que warul fe ab yonente du moo tax abu jahlin ak ñoom abu lahab ba leen yonente ci jabalu abi qubays yaa maachara quraish yaa bani hashim يا بني عبد المطلب نيب داجي مون لين داخ بوما لين واخون نه امنا بن ارمي بو نيك سي رون مونتاج بي دي واجا دوغو سي دي دك بي نداخ دا نين او گيم نكو وا نداخ ما جربنا عليك كذبا ما فنا خامي فت كون بو نيوكو واخون ني گيم بو نيوكو واخون ني گيم كو motax bu fekkone xamone nañ ci mom fenn bu boobaa bu taxawee ne yàllaa ma yónni ñu ne ko waxul moo tax yàlla defay sàmm yonente ba du fen lu mu wax même bu fekkee ne kaf la sax yàlla déggal ko ba nga xamante ne lu bay du woy na ci kanamam woy yam yu neex yooyu yonente bi ne ko laa fudda fuuka mooy sa gémmiñ bi yàlla na bu ci bañ fokk waxinu arab la arab yi dañ ko doon wax waxinu araab la yonente bi ba mu ko déggee mu woy mu jël baat boobu utiliser ko ñun dañ koy utiliser ci nit waaye wolbateku gémmiñ bi yëpp fokk ba ñoom yëpp fokk waaye yonente bi keroog ba ko waxee lubéy bi lubéy di nee na dund naa téeméeri at ak juróom benn fukk sama benn bëñ fokkul parce que la yonente bi laa fudda parce que yonente du fen bés bu yonente fenee rek boo boo gisee ci nit mu fen rek amal ne kii du kii xamal na kii du yonent moo tax même bu fekkee ne sax waxantu laa ko anil hawa in huwa wax wahyun yuuxa lu mu wax loolu mooy am moo tax ñu tuddee ko asadiqu almasduqu même bu doon kaf yow wax la baat sax baat boobu noonu moom mooy am ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee ba doomu abu lahab ba ba mu saagaay yonente bi yonente bi ne ko gis nga ko akalat ka ziab bukk yi ñoo lay lekk dégg gëm na ko parce que xam na ne kii du fe xam na ne kii du fe moo tax keroog ba ñu demee ca àll ba mu xam ne yonente bi waxoon na ko te bukki bi lekk na ko ñoom abu jahlin ak otbat ibnu abi muaytin bañ ko sànnee gis nga ko butit ya yonente bi yëkkati ay loxoom ne alayka bi kada kada kada tudd tur ya gémuñu yonente bi de dañu wax ne kii du yonente di koy fenlo waaye ba mu waxee baat yooyu nag ñoom ñëpp xam nañ ne lii dana am parce que yonente du fen lu mu wax rek loolu mooy li am moo tax as sidq min al asasiyaat ñaareel ba mooy al amaana mooy ku al amin jàng nañ ko fa ne passé ci mimbar inna xayra man istajarta al amin yonente bi nanka lañ ko tudde hada huwa al amin yadxulu alayna radina bihi xakama al amin lañ ko doon tudde mooy ko am ngor gi kon yonente bés boo gisee ku wor rek xamal ne kooku du yonente yonente bu joxee waxam kàddoom kaddu ba def koy respecte moo tax keroog ba nga xamante ne jóge nañu ca Uhud Abu Sufyan comme ni gars yi defoon ca eh, ca ca Badar loolu la bëggoon a def xam nga eh, seen seen gañe bi xam nga ñoo gañoon Uhud yéeféeri xam nga ñoo gañoon Uhud ñoo gagné waaye seen gagné bi dafa takk suuf ba ñu ñibbi fee xam nga lan lan la leen hindun wa jigéenu màkkay yéen a gagné ñu ne waaw yéen a gagné ñu ne ah neex naa weddi de maanaam ñoom bi ñu yeggee mi màkka ci lañ door a bàyyi loolu xel yéen a gagné ñu ne waaw xam nga keroog bi yonente bi gagné Badar kenn laajte wu yonente bi rey na juróom-ñaar fukki ci ñoom. jàpp juróom-ñaar fukki ponkal yobbu leen ma ma Madina takk leen ba ñu dëgër gaa yi di ñëw di jotu si comme ni ko gaa yi di waxee rek ne ki la daane ba toog ci sa kaw dënn bi kooku jarati naa laaj ci ku daan waaye bu ñu taxawee gis nga ko di dem naan nañ dem ci vaar ba rek xamal ne gañe bi takk na suuf nañ dem ci vaar pour war a seet ki daane kooku takk na suuf wala bii bi ci terrain bi nañ seet ci vaar. kon xamal ne bii boobu tax na suuf bu baax loolu moo dal yéefar makka yi bàyyiwuñ ci xel ba ba ñu yeggee makka jigéen ñi laaj de yéen a gañe ñu ne wax seen gañe bi neex naa weddi de indiwu leen bopp bu ñu dàkk jàpp leen benn góor indi ne yéen a gañe parce loolu mooy problème mooy ñoom ñoo gañe jullit ñi waaye jàppuñu kenn yóbbaale ñu bopp kenn te bu dee yonente bi juróom-ñaar fukki nit ci ñoom rey na leen wëlbatiku jàpp juróom-ñaar fukki ponkal Abbas ibnu Abdul Muttalib ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen ponkal yëpp kilifa yëpp ñu yóbbu leen Madina takk leen ba ñu dégg yi di watat di gis nga ko janvier bi ci Madina ku ci nekk ne sama waa ji laa jël te bu dee nag bat euh, Uhud loolu amul kenn demul Makka ne maa ngi jëli sama gars moo tax Abu Sufyaan bi mu ñëwee ba ci euh, montagne bi mu ne yaa Muhammad pour xaseet ndax dee na wala deew yonente ne bu leen ko faale ana pour baye ko ci lënt lënt bo mune ya yaa aba bakrin bu ko tontu mune ya omar mune ne bu leen ko tontu mune budé ñi dé nañu kon jotna sama revanche ana feyekuna omar manatu ko mun mune ko ñi nga tuddu ñu ngi ni di lay dégg bi mana yow fi nga len fokk ñu ngi fi la gën a naqari maanaam ñu ngi dund ci la xamee baatu Omar gis nga ko mu ne tey day def nañ leen ko non Abu Jahlin tey day def nañ leen ko parce que jamono boobu noonu xam nga lan la gañee tapet la parce que ñu ngi bañ a xoot ci bu ñu xootee ci biir saxaaba yi jullit ñi wëlbateeku nag àndaata ak seen capacité par leen def affaire parce que commencement bi jullit ñi ñoo dóor mujjanteel bi ñu gañee léegi nag bu ñu forcé woon tuuti rek jullit yi mën nañu bu ñu dellusiwaatee bu boobaa du neexati ci ñu def ko gañee tàppet mooy joxe gannaaw daw di dem ñu ngay dem ba muy dem nag mu wax baat boo xamante ne maanaam bu ko xamoon di ko wax moom Abu Sufyan mu ne suñu rendez-vous dewen bi bu dee ñemee ngeen pour pouvoir am bi mu mën koo dooleele pour jullit ni bu ñu ñemee joxe rendez mu ne bu ngeen ñemee bu dewee ne ñu dajewaat même waxtu bi yonent bi ne tontu leen ko ne heure bii déwén daaw euh, déwén mooy bii ñëw déwén heure bii déwén nañ dajewaat Abu Sufyaan départ ba mu départ yi ah moo ko xamoon déet moo que gagné tapet la ba ñu demee ba Màkka ñoom ci seen bopp gis nga ko ñu ne waaye Abu Sufyaan <laughs> rendez-vous bi nga joxe nag boo ko xamoon doo ko joxe de mu ne ko rëccu naa waaye nag il foog ñu def ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba rendez-vous ba yegsee am na ci xam nga comme naafiq rek gis nga li ci xewoon comme défaite bi xew ci ñoom ñu xaw a ñàkk courage yonente bi sallallahu alayhi wasallam yónnee pour ñu dem ci rendez-vous ñii di wax naan gis nga ko man de bi léegi sama tànk bi wéragul bi léegi sama loxo bi wéragul <laughs> lay bëri yonente bi bu dee man kenn maay génn dem danaa génn dem départ génn gis nga ko ansaar yi mu am ñu ko ci topp muhaajir am ñu ko ci topp waye Abu Sufyaan itam dam ba di lacc rek di lacc fa la yonte bi tollu ba ñu ne ko yonente bi genn na kon rendez-vous ba mu ngi koy deggal parce que yonte asaadik du la wax lu mu def ba ñu demee ba yegg mom Abu Sufyaan def pexé ay pexé rek parce que mu ngi baña gis nga ko rendez-vous bi mu fossé ko baña ñew ci bi mu fexé be buñu waxé né ne suba comme buñu daj wara dajé masala moy bés ci lañ wara dajé mu fexé be àllarba ba mu yegg fa ba minuit ba guddi mu départ jëlaat ay bagages am départ dem mu ne pour bu ñu waxee mu ne dem naa waaye fekkuma leen fa maanaam ñëwoon na ba ci palaas bi waaye fekkuma leen fi yonent bi suba teel bés bi ñu waxanteel mu yegsi ba ñu yegsee ñu gis ay fuy takk ay ay palaas yuy takk ñu laajte ñu topp affaire bi ñu topp ar mooy indi alquran bi wax ne yastabshiruuna bi neematin min allaahi wa fadlin lam yamsashum suun wa ridwaanallaahi moo indi aaya boobu ba ñu gisee ne am na ñu fi nekkoon ñii ñaan la ñu topp tànk yi waa Qurayshin ñoom wa Abu Sufyaan di gis gaa yi ne leen di topp si mu ne kon seen bagage yi moo indoo ñuy sànni seen gis nga ko seen saaku farine ñi moom laa ko wa taba gis nga lam yam sa wa taba ridwaanallah wallaahu zul fadlil azim ñu maanaa demoon nañ gis nga ko ci biir xeex ba jotuñu doolanteeg yéeféer ñi te indaale nañu ay saaku saaku farine moo tax ñu ko toujours ko doon tuddee gis nga xeexu farine ba waaw gazwatu sawiq maanaam xeexu fariñ ba parce que ci lañ indi ay farine yu bari ñëw rek gis nga ko di lakk beñ rek parce que yéeféeri ñëw bugguñu daje ak jullit ñi teel a yegsi pour ñu ne yegsi na teel a départ yonent bi topp leen ak saxaaba ñu bëgg a wàññi seen bagage pour gën a gaaw ñuy sànni sàkku farine yi sa gis nga ko bidongu duul yi sàkku farine bidongu duul yi pour gën a gaaw rek gars yi topp leen topp leen topp leen ñu gaawal kuy daw bëgguloo ko jot waaye xam naa itam ñii itam est ce que na leen jot <laughs> ñuy for rek saaku yi di for duul yi ci la ñu dellusiwaat gis nga ko ne fan kalabu bi ni'matin min allahi wa fadilin waaw ñu dellusiwaat ak ay xiiwal biir yi fees ñuy bañ rek ci yoon bi ba yegg si weer lem ñuy beñ rek kon pour won la ne alayhi salaatu kaddu bu ko xasee bi joxe ak lumu mu métti moo tax moo sahaaba yi bu dee man kenn maay dem mu ne damay dem sallallahu alayhi wa sallam kon pour woon la ne boobu asasiyaat la bi maana fondement la ci melokaanu yonente mooy al amaana asidku wal amaana ñetteel ba moom mooy al fataana mooy yeewu yonente dafay yeewu waaw yonente dafa yeewu yonente du dof bés boo gisee yonente bu dof rek gis nga ko xamal ne xam nga yàlla du yónni ku mel naka juha yàlla du yónni ku mel naka juha juha dafa am fukki mbaam ak benn di dem jaay konte mbaam yi benn ñaar ñetti muy fukk ak benn mu yéeg ca kaw benn mbaam ba mu yéegee conté waat muy fukk mu wàcc conté waat muy fukk ak benn mu yéegaat ci kaw mbaam bi conté muy fukk mu far wàcc topp mbaam yi di dàq di dem dajeeg benn waaye mu ne waa juwaa doo yéeg ci benn boog ngay dox nii rek ah mu ne ko man gen demaa yéeg bu ma yéegee compté am fukk kese te bu ma wàccee compté am fukk ak benn ma am fukk ak benn nag moom a gën a am fukk <laughs> xam nga yàlla du yónni kooku ku dofee noonu wala moo tax yonente du dof yonente dafay yeew waaw moo tax Yaakuba bañ ko indilee eh, yére Yuusufa ba ne akalahu ziibu mu ne ah loolu mënul ne bukki lekk sama doom bi tilli bi lekk sama doom ji ba jeexal ko te yére bi mu sol xotteekuwul ah ndaw ndaw ndaw bukki bu bari yer yërmande ndaw bu ma na xel la moo tax amul yonente bu kànnasu yonente ba yeew bés boo gisee yonente bu dof rek amal ne kii du yonente waaw kon asas la ci asasiyaati la bokk ñeenteel ba mooy ak tabliir am fit nag manoo ko jegee doon xaritam ak manti doon lu dul mu wax la dëgg bi nag ak tabliir ñeent yi mooy asasiyaat lu dul lii ci yonente ci kamaaliyaat la bokk moo tax mujizaat yii muy tudd nii yëpp mën na ñàkk ci yonent yonent mën naa ñëw amul benn mujiza amul benn mujiza ku mel naka Yunus alayhi salaam ban mujiza la def amul benn mujiza benn mujiza amu ko bi nga xamante ne jën bi wondu na ko mu am fa ñeent fukk at wàccee ko sànni ko loolu mujiza la ku ñaan mujiza bu mel noonu. jën bi wonnu ko ñëw yàbbi ko ñeen fukki at eh, naka ñeen fukki fan lekkul naanu te deewul dara jotu loolu moo ji dara <laughs> wala déet moo ji wala wala wala ay dóor la moo ji da bu mel moo kenn ñaanu ko yàlla wala déet moo tax Seydina Yunus amul benn mu'jiza boo xamante ne ñu ngi koy wax ci te pourtant ab yonente la boo demee ci mboolem yonente yi jeex ñii am nañu ku na naka Isa ku mel naka Moussa ku na naka Seydina Muhammad mboolem yonente am na am nañu mujiza am ñoo xam ne seen mujiza bëriwul am ñoo xamante ne seen mujiza bëri na yàlla li mu gën a bañ mooy mujiza yàlla bëgg ko moo tax boo demee ci nitu yàlla ñu di la wax naan ne karaama nga xam moo remplacé mujiza ñu ne xaydatu rijaal ni mu nekkee xaydatu rijaal nga xam ne dafa ruslu ci góoru yàlla mujiza noonu la ruslu ci ab yonente moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa masu koo bugg mas na toog ci kaaba ji moom yonent bi digg bëccëg mu xaw a sonn di noppaleku ci keppaaru kaaba ji Xabbaab ibnu Art nekkoon gis nga ko nekkoon euh, nekkoon ci mini de métal tëgg la woon ñëw fekk yonent bi mu ngay noppaleku gis nga ko yaa rasulallah yaa rasulallah yaa rasulallah bi far lan la ne il faut nga ñaan yafiruma makay sonal nañu ñu makay toroxal nañu waye na yal na musa de fir'auna alako na na na na na na na yeneen yonent ya nuhin def alak len il faut nga def non nak ya Rasulullah, il faut nga def dara nak yonent bi mer meru ci kaw ci kaw la mer nako li ngay wax ni moy lan mu nek kenn ci ñi len jitu dañ jëlon siyaamet tak ko ci kaw bobu di ba dagg ko muy ñaar te waxu ko ndax loolu daal na leen yéen commencé di koy nettal am na koo xamante ni dañ koy jël daaj ko di daaj bopp bi di daaj yaram bi di daaj euh, gis nga ko euh, euh, atraf bi mooy baaraam yi ba mu sedd ndax loolu dal na leen yonent bi commencé di koy tuddal ba moom ci moom moom mu dee tiit ne ko yaa rasulallah baalal kon mu'jiza ab yonent même bu xewee ci moom sax daruura moo tax bëgguñu gis nga ko mu am ñu leen koy laaj moo tax yonent bi sallallahu alayhi ma sallam asu koo bëgg defal kéemaan suñu góor bu baax ba mu demee ñoo jo mooy seen problème mu jumaa jare dem fa di wax wax wax wax bëgg yi dégguñu suñu benn mag ko dafa am rek taalibeem la ah, ah, <laughs> ci kaw am <laughs> ah, fap <laughs> bi ma analee léegoo mais ci kaw ñëw ci kaw moom mii la benn maanaam man ngay ngemb ah loolu ana bugguñu ko kon al mu'jiza wal karamaat ya haydatu rijaal kon ñàkk a pexe la waaye nag léegoo léeg yàlla moo koy def comme yàlla ni muy defee jigéen mu gis mbaaxam loolu wàcce pour mën a soulager yaram bi noonu la koy yàlla di defee léegoo léegi pour ñu nga xam ñoom ñooy jullit ñi ak ka ñu yónni mu xaw a aw soulagement tuuti ci ah kon yàlla mu ngi ak man kese waaye leneen lu dul loolu bokk ci mm-hmm. parce que ku keemaan ku keemaan xar baax loo des boo gisatul xar baax ba moytuwul nga wétti boromam ngémam fu mu làkk soriwul waaye nit dangay ngay ci lu dul ngay gis ay xar baax kon mu na ni moo jisaati ñu ngi leen di tudd waaye taxul nag waaw taxul yàlla fonkee ko ab yonente li yàlla fonkee yonente mooñee ko ko te mooy asaasiyaatam moom mooy ñeenti yii te ñeenti yëpp lan la du melokaan ak jukko moo tax boo toogee fi di wax naan damay gàmmu damay gàmmu màggal yonente bi jikko la roy ko ci ñeenti yi ñeen roy ko ci sidiku roy ko ci al amaana roy ko ci gis nga ko ci al fotaana waaye roy ko ci at tabliix mooy yow la la nga fa dégg ci rafet na ci ay jukko bi yonente bi nga dem lamboo ko sa njaboot itam nga fexe ñoom ñu mel noonu moo ci am solo ñu continuer ci mujjizaat mu ne waxat mu nubuwati boo demee nag woykat bi ne lakkal mujjizaatu ajaza illal wara moom li ko yàlla defal ci ay xar baax nag amul yonent bu ko am Moussa ñaata la woon te bokk na ci ponkal yi gën a bëri mujjizaat Moussa ñaata la woon tise ayaat xam Seydina Muhammad nag daleel ca commencement ba de daleel ca commencement yépp ay mujizaat waxat xatmu nubuwati nee na bokk na ci mujizaatam yi moom mooy tampon ba tampon yonent fii wustaakati fayhi mu ne na ci diggi diggante ñaari mbagg yi ci gannaaw fii la woon ci côté ndeyjoor bi nag la gënoon a jege boo ko doon xool dafa doon xaw a mel ni comme léget waaw maanaam moom dafa bokkoon ci x yi sallallahu alayhi wa waaw ah, maanaa yàlla léegoo-léeg masuleen gis nit ko am juróom ah, du comme yii de ah juróom benn maanaa xam nga bi dafa gàtt am na ko am juróom maanaa fii juróom la ñeenti la xam nga am am ku am juróom juróom la am fii ak bii juróom ñaar masuleen am na de hmm, moom na muy na muy teggee piano kenn mënu koo teggi parce que juróom benn la am fii bi maanaa yàlla lu mu cërale jëmm mu feeñ fa rek am na lu mu làkk ci moom loolu moom <laughs> gaa yëpp xam nañ moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa bokkoon ci x yi maanaam boo demoon ci yaramam da nga fekk loo xamante ne bi maanaa lu raar la nga fekk ko ci nit xam gis nit gis nga ko waaw ñoo niroo yëpp waaye da gis koo xamante ne am na fu mu wuute ak nit ñi loolu yàlla def koy def loolu de jàmbaax yàlla kii ne ak lu mu koy jagle nga xam la mu doon loo xamante ne moom sax du xam lan la waaye yàlla moom moo koy def moom yonente bi dafa bokkoon ci ñoom maanaa jëmmam bi nekkuloon jëmm bu ordinaire boo ñëwoon ba ci digg bi fii da nga doon fekk ci gannaaw bi du yëgg ci gannaaw ba ci suuf ci wetu mbagg bi fii côté ndeyjoor la gën a jege da doon fekk benn léget benn léget boo xamante ne boo koy xool dafay xaw mel ne genre fu nag déggaat maanaam nag bu déggaatoon ci suuf si nii noonu mu mel noonu la xawoon a mel mais moo jëloon sa baaraam bi sax boo mooy mën ko dugal ci biir koy def mu am ay karaw yoo xamante ne ñoo saxoon xaw ko wóor noonu war mel ni ñaari nopp daal yu taxaw ci digg kii am bi fii sallallahu alayhi wa sallam ba mu juddoo Aminatu bintu Wahab bi ci la ko gis ba Abdul Muttalib ñëwee ba gis ko mu ne ko lii lan la ñu ne ko ah lii de xam nga lii laa ko gisee mu ne dee koy nëbb moo tax def ko doon def ko doon nopp bokk na li tax salmaanul farisi tuub keroog ba muy tuub si mu ne ñetti la ko sëriñam waxoon nee na fii lay dëkk mooy Madina nga xamante ne ay tàndarma ñoo ko wax ñaareel ba mu ne am na gis nga ko euh, am na benn leget man rek boo ko tuddee parce que léget nga ko mën a tuddee ci ñun wala de Eh, jarba oto dem na Makka kabar di julli ci kaaba ji jàkkaarloo moom maa ngay julli teeku bi ne nii toog a toog rek gis nga benn jigéen ñëw bëri ñëw xool xool xool def def faale wu ma delluwaat mu ne ayib boo ko xool da ngay foog comme léget waaye du léget moo tax fii la ko boo ñëwoon dangay ngay foog ne comme léget la waaye dara mu musu ko ci gaañ dara musu ko ci maanaam mbind la bu amante yàlla ko def muy ñaar ñetteel ba mu ne du lekk sarax ñett yi moom ngay xamee ne moom la mooy mooy waaj ba mu jógee ba mu ñëwee ñëwee Madina ak ni mu xewee yëpp dañu jaay ko fa mu far toog dégg turu Muhammad ne ab yonente bu jógee Makka benn yahud moo ñëwoon ci mbokk yahud bi nga xamante ne moom moo ko jëndoon parce que moom noonu lañ ko jaay waaw moom dafa ñëwoon waxtaan ak ay nit pour ñëw fa de yahud bi ma ñu ñëwee ci Madina diggante mu ngi koy waxaale keneen ne bokk na nag gis nga ko maanaam léegoo-léeg dafay daanu rab bu daanu rab dafay wax naan du ma du ma jaam du ma jaam diggante jaay na ko bu yàgg ba ñëwee di koy ne kaay ñu dem ci kër ga mu ne ko du ma jaam de mu ne ko waxoon nañ bokk <laughs> te kooku dafa àndoon ak moom rek pour mu gunge fay leen xaalis pour ñu mën ko indi ñëw ba foofu jaay ko moromam yahudi mu ne ndikkite far nag mooy fi mu soxla noonu mu toog ak sàngam boobu noonu mu am beneen waay bu ñëw xaritu sàngam bi dégg coow li mu ne ko waaw lan la waa dina di coow ni mu ne ñoom dañuy fond mu ne ab yonente moo fi ñëw gannaaw Moussa Moussa beneen yonente daf fi mas a nekk mën a nekk mu ne ab yonente la ñoo ne moom la ñuy teeru ba mu déggee turu yonente ci la jóge ci kaw daal mu ne ba mu demee ba ca ngoon gis nga ko mu ne mu dal jël ay ay ay ay ay raisin boole ko dal di koy indi ba mu ñëw ba ci moom ne ko demaa dégg ne gan nga bu fi ñaw ma indi woon lii sarax la pour ma jox la mu ne mu woo gars ne lekk leen ma xool ko gis ne lekkul mu ne mooy benn ah. mu ne ñaareel ba ma xëyaat indiwaat xam nga gis na ma diina mooy bu njëkk ba kon bii mooy ñaareel mu xëyaat indiwaat tàndarma ak ay raisin ñëw jox si ko yonente bi mu ne ko gis naa ne doo lekk sarax waaye bii hadiya la kado la mu ne ma gis ko mu woo gars yi dugal loxoom lekk gaayam yi lekk nee na bi ma paree ci laa toog ne nag di xool beneen bi des boobu nag naka laay ko xamee xam nga dëkk bokkul ci nit nag ñëw di sumi yaramu nit ki di xool nee na ma toog rek di xool xool di xool pour nag mën naa mën naa am occasion pour gis loolu nee na ma mu mel ni xam nga yonent bi sallallahu alayhi ku xereñ la ci ñor xam na li muy dox moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàccee benn benn kiyam bi maanaam comme manto yi ñuy sol noon mu génnee benn mbagg manteau bi defe yaram bu ndaw xaw a bàyyi ni mbàgg bi bi affaire bi génn bi affaire bi génn Salman dal di daw si rek daanu ci gannaaw yonente bi commencé di foon ne ashhadu annaka rasulu rabbil alamin yow yaa yonente yàlla xaatamu nubuwa boobu yàlla tamponné ko ko moom la ko yonente yi doon xàmmee malaayka yi di ko ko doon xàmmee bokk na ci moo amul kenn ci mbindaakoon yàlla ko am lu mel na du ko ko yàlla defale xam nga da ngay gis dara gis nga ko fu leget ak yooyu noonu nga gis mu ñaaw waaye bosam yonent bi sax da ngay gis ne mu rafete maanaam doo ko xool ba gis ne lii da ngay gis ko am cicatrice dem ci docteur bi pour ñu jéem di koy opérer pour war koo dindi façon yooyu parce que dafay ñaaw ci gisin nga gis ko am dafay muur bosam waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bosam dafa rafetoon dafa taaroon parce que ci mbindam la bokk sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne la wa xatmu nubuwati tampoo ba nga xamante ne moom mooy moom kese ba ko yàlla mandargale fii wusta kafe kafe fii booy xoor xar kanamam bi mu baddarin xar kanamu yonente dafa mel ne comme baddar mooy dafa wóoroon ni waaw ah, alayhi salaatu xar kanamam bi sewul woon nii waaye dafa wóoroon nii alayhi salaam comme comme weer fii imtidaadi xaddin nee moom yonent bi dafa amoon taxawaay moo tax ngay dégg gis nga ko bay doon njool njool màkk dooy déggal waaw njool màkk doo koy dégg mooy yonente bi moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa meloon comme kuy tawee ko gis na bu toogee bu taxawee ak ay njool nii tiimu leen doo ko gis ba nga ne njool baa nga ne bu àndee ak ak ay ñu gàtt waaw mu mel ni dafa gën a gàtt maanaam du doon njool bu ànd ak gaa yi nga xamante ne njoolam dafay ñaaw nga mën koo ràññee njool baa nga ne ci biir gaa yi waaye bu àndeek ak njool yi nag yonte bi masta taxaw ak nit mu tiimu ko sallallahu alayhi amul ko muy taxawal ci góoru yàlla bi ko tiimu ko kum manti doon yéen ñaar bu ngeen taxawee moo lay tiimu mbàkk mu mel ni dafay bu ko neexee njool alayhi salaatu wasalaam bu ko neexee bu ko neexee gàtt sallallahu alayhi wa sallam gis nga ko buñ la waxe xaaru sawri xaaru sawri fa mu duggoon laqatu fa foofu presque nit xeju fa yonente bi man faa dugg ànd ak Abu Bakri bi yëfiru makk yi ñëw mënuñ leen a gis xaaru sawri maanaam presque dara làqu ni fa yonente bi duggee ak yaramam ak na mu njoolee ak ñaari nit man faa dugg hada min al mujiza waaw min tax ma ne la fii wajhin mubaddarin wa fi imtidaadil xaddi dafa amoon taxawaay taxawaayu njoolaayam itam banku wuloo nii da ngay gis ku njool xaw a banku nii nga gis njool boo xamante ne dafa yi mooy buy dox di def nii di def nii di def nii nga xam ne njool bi dafa xayati boo téye tànki rek mu daanu parce que dëgërul yonente bi melul woon noonu maanaam njool bu dëgër la woon waaw forme góor la taxawoon sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon sa fii ci dënn bi am rëdd bi nii karaw bi def rëdd bi nii ñëw fii ci jumbax bi alayhi salaatu wassalaam waaw jëmm ju rafet la amee mais boo gisoon yaram bi dafay mel ni dafay ay ay ay ay ci def muy melax moom yaramu yonent bi sallallahu naaj laaloon nii dafay mel ni comme verre buy tàppe dafay melax alayhi salaatu wassalaam kooku mooy moo tax Aïcha nee waaw boobu muy ñëw ca timis di ñëw di ñëw di ñëw timis ba di gaawantu ak guddi nee na noonu mu dégg yonente bi rek muy gaawantu génne dagg kii ba muy dagg kii bi puso bi di daanu ak guddi googu te lamp yombul woon nee na yonente bi ba mu ubbee rido bi ne nii tel dina puso ba dal di melax alayhi salaatu wasalaam nee na ba muy dugg si rek comme torse rek boo ko tegee ci kii ni muy melax mu dal di melax mu dal xool yonente bi mu ngay muuñ yonente bi xanaa lan la mu ne ko buma ma mënoon woy tey ji la way da nga ne lal ah kero nak la ko misale nee na da nga melni ni comme weer xar kanam sallallahu alaihi wa sallam nee na wal qamar wer bi yan shaqqu xotteeku na si xëy li amri yi ci ndigalam mhm. alquran wax iqtarabati wan shaqqal maanaam yàllaa ko wax te lolou xam-xam saxal nako ci ganna Ah, gis nañ ko gis nga ko ay boroom xam-xam yu gëstu ñu ne am na benn waa xam loolu moo tax mu tuub mu ne dafa am benn bés mu jóge ci liggéey kaayam rek ñëw toog ci néegam ubbi télé bi rek tombeeg li ñu tuddee NASA NASA waaw ah, fekk dañ ko joxoon benn livre alquran benn xaritam moo ko ko mayoon bu ñu traduire ci anglais nee na ba mu ubbee rek saar boobu la tombeel iftarabati saatu wa shaqal qamar mu xool mu ne affaire ah, weer bu xotteeku loolu dafa mën a am ñuy dañuy font rek tëjaat téere bi tëjaat téere ba teg fee baat boobu rek moom la ci marqué mu ne lii du dégg parce que ay weer yu xotteeku mooy am tegaat toog ba diir mu jóge ci euh, fi muy liggéey dugg ci këram rek taal télé bi xam nga NASA maanaam mooy ñuy dem ci weer bi ñu ne Sénégal sax yóbbu na seen satelit mu ne ba mu ubbee am na seen télé bopp mu tombeek foofu mu tombeek benn documentaire ñuy def critique maanaam di def ay taxqiqaat ay gestu ci wàllu weer bi dañuy fekk ndikite ana weer bi melul comme suuf si di windeelu nii suuf si nii lay demee na suuf si nii lay def bereŋu di dem suuf si nii lay dem di bereŋu vitesse la nag vitesse la de juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki kilomètre moom lu ko ëpp moom lay daw par par waxtu moo gën a gaaw oto suuf si ni muy dawee nii moo gën a gaaw oto bu vitesse bi di daw di dem vitesse lay def suuf si vitesse lay def ñu ñoo ko yegul rek comme boo toogee ci biir raay bi rek avion bi di naaw doo yëg ne mu ngay naaw te fekk mu ngi naaw ak doole ñun loolu moo ñu dal waaye suuf si dafay vitesse moo gën a gaaw oto ni kon suuf si nii lay def di windeelu nii di daw di dem waaye bu dee weer bi moom dafay daw di def nii maanaam nii rek la def duy def nii nii rek la def maanaam benn côté bi ñuy gis toujours moom la ñuy gis la ca gannaaw bi ñu ngi koy dañ koy faral di gis documentaire woon ak la doon seetaan mu ne dañu gis ne fi leen dem noonu dañu gis benn xotteeku bu rëy ñu jël seen caméra yi topp ko topp ko nee na ba mu sori léegi nag ñuy gëstu lan moo war a tax xotteeku xotteeku weer bi rek xelam dem te la mu jàngoon ca alquran id ixtarabati saatu wanshaqal wanshaqal xamaru aaya boobu moo tax mu tuub dugg ci lislam moo tax mu ne Moussa amoon na et di gëmloo gars yi man nag alquran bi mooy bii xëcc gars yi mooy sama keptaan bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu mel ni xew na ci jamono bu yonente bi loolu nag benn yonente masu koo def amul mbindaafonu yàlla bu yàlla may maanaa li wër li leen wër ñun lu ñu wër moom la yonente yi doon def tasarruf Moussa ba mu soxlaa ndox dafa door montagne dafa door montagne waaye Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kese moom moo génn suuf si dem def kemaan fu dul ci kaw suuf boo xamante ne adduna bi yépp ñoom ñoo koy gis mu mel ni mu ngi yoon Makka moom yonente bi waaye jamono boobu ku nekkoon fii Daaru Saayid danga gis loolu da nga gis weer wi parce que gaa yi nekkoon ci àll bi ca guddi googu noonu ñoom ñu ne seetlu nañu jamono boobu gisatuñu weer bi ci kaw asamaan jamono boobu mu ngi ci loxo yonente dafa am benn waa joo xamante ne dafa ñëwoon Makka kilifa la woon ba mu ñëwee ah mu ne naka ngeen def nag ci réew mi nu ngeen def ci dëkk mu ne jamono yi daal benn xale moo fi feeñ terrible nag sonal ñu lu nekk mu koy wax ñu ne kan la mu ne doomu Abdul Mutalib la setam la mu ne ah, Abdul Mutalib de kilifa la kooku anamu ñu ne mu ngi fi de woo leen ma ko mu ñëw mu ne ñëw kooku du ñëw te waaw <laughs> ah, kooku doo ko woo ba mu ñëw moom daal gis nga yëfu boppam bu ko neexee daal ne da suñu kaw. waaye amul nit ku koy imposer dara alayhi salaam maanaam dafa teel a liberté bokkul ñoo xamante ne dañ leen tañ tànc def leen ay jaam woo du ñëw de moom bu ko neexee bu ko neex bu dee waaye woo ko rek kaay rek mu wuyu si ah, xanaa ci njëkk ak teraanga boo ko invité daal wala façon yooyu mu ne ah lu manti doon bu dee moom dafa wax ne ab yonente la dox naa adduna bi yëpp daje naa ak ñoo xamante ne ahlu kitaab lañ wax leen ko ne. na leen defal moojiza ne leen ko yonente bu yàlla mas a yónni parce que loolu am na ñoom daf leen jaaxaloon ndax yàlla mën naa yónni nit daf leen doon jaaxal ndax yàlla mën naa yónni nit mu ne leen ah kay yàlla dafa yónni nit waaye yonente bu yàlla mas a yónni nag dooleel na ko ay moojiza Moussa itam Insa dafa doon dundal ila axiri Ibrahima ca safara ba na leen defal moojiza bés bu ko defee ngeen xam ne ko dëgg bu ko deful rek ngeen xamne da dafay wax rek ah def gis nga ko benn ndaje dal di ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba ñu yegsee délégation bi ne ko yow la ñu soxla ne len bismillah ñu ne comme da nga wax ne yonent nga comme Moussa mu ne wa yonent la comme Moussa nga ne yonent nga comme Isa. ñu ne wa yonent la comme Isa yonent ya nga comme Ibrahim mu ne yonent la comme Ibrahim mu ne ñi ya, nak def ay yow nag dañu bëgg nga def mu'jiza boo xamante ne ci la ñuy tegu pour man laa gëm mu ne leen lan ngeen bëgg comme guddi la seen weer bi ñoom dañ bëgg weer bi nga xarañu ko ñaar xoolal yéefeer yi bàyyi suuf si yëpp weer bi daal lañ soxla nga ko ñaar yeneen tamit ne baax na ba suba jàmm walla bes sangam ñu joxe date ñëpp ñu daje xotel len ko fukki fan ak juróom wer bi wara mat sekk bes ba yex nga dañu wane lo bëggul mu yex bu ko utal bes te joxe nañu rendez-vous joxe nañu place ci jabalu abi xubeesin ci digg makk ñu tok ba bes ba yex ha ah, ngona mon nga yeb sangu ñoo tok nag pour seetaan te lañu wara xoti wer bi parce que fi ci senegal amna na way bon mu ne dina xotti gi <laughs> Biñu gitu, dëgg yàlla yàlla yërëm iya, ñu Sénégal amul ko ko fi wax ne dana xotti géej gi ba ca Espagne xale yu góor yëpp préparé xam nga nit ak li mu bugg rek comme xale yi mu ngi bëgg dem Espagne mu ne dinaa xotti géej bi fi mu Espagne nga dox ba yëgg am nañu pare seen bagage ñëw di toog gémuñu ko waaye yàlla na doon dégg maanaam loolu mooy wax gémuñu ko lii mënul nekk de waaye yàlla na doon lu mën nekk rek. dañuy yéeg rek dem ñun daal suñ soxla na faju rek parce que loolu manul léegi waaye nag il foog na ñu dañ si kumpa weer bi tey la ko Mouhamed war a xotti muy ñaar est-ce que mën na ne déet waaye Mouhamed a ko wax de te masuñu fen loolu mooy problème gaa yëpp préparé ngoon ba ñëpp sangu ñëw ñu dema dem ba ca timis ga yéen tamit toog ci biir néegam rek alayhi salaatu wasalaam ñu nekk fa rek Euh, guddi gi di xotti rek di xotti ba gannawal bi dem boo ko xaajee ñetti xaaj mooy onze heures yooyu xamante ne weer baa ngi ci digg nag asamaan bi am na ñoo nañ bi wax sax ah est ce que dana génn si est ce waa ji nag gis nga ko delloowul avance est ce que dana ñëwati parce que waxul dara génn siwul gis nga ñi ñu ne ah bu dee génn na nga ñëw wax ma man maa ngi dem tëddi man ñu toog a toog yonent bi ne tel gaa bu woote waat génn si na génn si na alayhi salaatu wasalaam weer bi di tappe ci jeexam bu rafet boobu muy dox di yegg si ñëw ba ci kaaba ji ñëpp topp ko mu def ñaari rakaam def ñaari rakaam rek gis nga ko tàllal loxoom ne foofu la ko jibril feeñoo ne ko yaa muhammad mu ne ko naam yàlla nee na loo bugg diggante asamaan ak suuf mu wuy la lépp teg na ko ci sa loxo yonente bi dal di yéeg ci kaw montagne mu ngi wax naan ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah di yéeg di ci kaw montagne bi ba yéeg ci kaw ñépp di seetaan mu dal di jël loxoom wax tàllal ko weer bi ne ko wuyu si ma ñu gis weer bi buddeeku di ñëw di ñëw ba yëg si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li nag kenn xamul xaw noo ko mën a firé parce que weer bi ci boppam moo ëpp mag dëgg la suuf si moo ëpp weer bi waaye weer bi moo ëpp continent Afrique ak Asia boo ko boole woon waaye léegi naka la ka jee ker bi digg makk nag daf la jaaxal ah doo gis butéel yi ngay dugal ci nen butéel yi ngay dugal ci nen bi nga gis nen bi ci biir kon yàlla moo gën a xereñ mën na jël gis nga ko weer bi dévaluer ko dévaluer ko wàññi wax yow comme tey fan lañ ko soxla makka la war a dem walla de muy ñëw ba yëg si ci loxo yonent bi yonent bi téye ko ne ko nii mu tappe ci kaw jéeb bi ñëpp di koy xool mu xotti ko ñaar. jël benn bi dugal ci pokotaanam benn bi bàyyiwaat ko mu delluwaat di dema dem ba ci digg asal ashhadu anni rasulullah gaay na mustamir eh, kii moo man jëber nag jëberkat bu mag mag moo tax fa iftarabati saa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu wa kazzabu wa tabaw moo tax ku la sa taalibe Seydina Ousmane bu la wax ne defal kéemtaan ma door laa gëm boo sonnee ba def kéemaan itam du tax mu gëm parce que xoolal yeneen dem ñoo ko defal kéema mu def kéema est que tax nañu gëm ko Firawna moo jàkkaarloog Muusa ne indil ma kéemtaan yàllaa la yenn mu ne ko waaw mu ne indil ma kéemaan Muusa indil ko kéemaan sànni et ba mu doon jaan ila tax na mu gëm lan la wax inna rasulakum alladi ursila ilaykum la majnun seen yonente bi dafa gis nga dafa cupit alladi allamakum huwa kabiru alladi allamakum njëbeerkat baa ngoog bi maanaam moo tax yàlla xawul sonn ci ay mojizaat yi boo tuddee ci alquran bari yum ci tudd xam nga bii ponkal la bii universel la wala da ngay wax ne gis nga ko bi maanaa romb na adduna bi waaye dafa dem ci univers bi maanaam mojiza bi parce que ñi nekkoon ca àll ba bañu ñu xëyee yéeféeru màkka yi dañuy dañoon kumpa ndax lii réalité la wala yonente moo doon nax seen bët yi yëfu njëbeer la ñu yónni ay yonente ñu daw dugg ci dëkk yu sori ñu laaj laajte ñu ne a ah, ñun de am na heure boo xamante ne xool nañu weer bi gisatuñ ko ci kaw asamaan ñu waa weer bi fu mu jëm kon noonu nga xamante ne weer bi déplacé wu na ci jamono boobu univers bi mooy ci adduna bi xam te ci nizaamu chamsi la bokk ci nizaamu chamsi mooy juróom juróom-ñeenti biddiw nga xam moom mooy war naaj bi keroog keroog keroog am na am na lu ci yàlla dugal lu ci bokkul kon univers la ba kaw moo tax yàlla tudd ko ci alquran iqtarabati ashaatu asaatu wan shaqa alqamaru amul benn yonente nag bu yàlla mas jox pouvoir mu génn ci kaw suuf Moussa demal ca xeer ba nga door Moussa jëlal et bi waaw ba mu buggee de mojisa mu dafa jël et bi mu Seydina Muhammad soxlawul loolu yëpp waaw ba muy génnee ndox loxoom la dugal alayhi salaatu wassalaam kon wal kamaru yan chaq shi xayni li amrihi ci ndigalam wal kullu ñëpp yéeféeru makka yi yanzuruna ñu ngay xool min al kufaar yi nga xamante ne alon la di ak ñoo dëgër bopp dañu wowle de yéeféeru makka moo tax de koy sant yàlla de jamono bii nii nga ne shadoon laa ilaha illa di tagg yonente mawlaaya salli wa sallim di daanu yéeféeru makka yi gisuñ lool parce que li ñu tuddee mooy alqurbatu xujba gis nga jigéen daf lay iir ba doo li hada rasul la doo yaakulu taama wa yamshi fi la mu ne wa awbala dabaabu bi maihi wa malkihi qabla isdaalil kaffayni nadaahu ka ankadi nee na wa awbala tuur na dabaabu niir bi maa ihi wa ndox boo xamante ne kenn xamul ni mu toll ade mi moo jidaati Moussa bañ ko waxee nag isi saskaa Moussa li qawmihi na nadrib Moussa mu ne naam mu ne ko dooral xeer bi fan la xeer am ne ko génnal Moussa génn départ génn dëkk bi mbooloo yëpp topp ko mu dem ba ca xeer ba ne ko ba bàcc ndox bi door a génn isna achara ayna fukk ak ñaar moo génn ku bugg a naan ñëw naan si waaye moom yonent bi alayhi salaam ni ko Buxaari nettalee ñëpp nettali ko ci téere xadis ajjuma ja la doon xutba taxaw ci kaw mimbar bi noonu muy xutba rek mu am benn waay bu dugg si taxaw ca buntu ba ne may leen ba de baal leen ma ak yaa rasulallah yaa ngi xutba de baax na trop waaye balaa ngay jaamu yàlla nag biir bi dafa am lu ciy nekk te suñu tool yëpp mu nga yàqu parce que bekkoor bi tool yëpp a ngi yàqu bi ñu joonee a ngi yàqu ñaanal boobu yonte baa ngi xutba yonente bi noonu la daggee xutba bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal loxoom saxaaba yi nee na ba ñu gis pokotaanam bi pokotaan weex tàll na bariwul de pokotaan ñuul rek ñu ngi la bari ci pokotaan ñuul rek bu yonente bi lañ weex tàll alayhi salaatu wasalaam góor gu civilisé ba gis pokotaan yi di weex alayhi salaatu wasalaam yaa rab yaa rab yaa rab saxaaba yi ne ba muy wax boobu naaj baa ngi tàng façon tàng boo xamante ne benn tokk niir gisuñ ko ci digg asamaan waaye ba muy wax yaa rab ba muy mat ñett asamaan bi xiin na bi commencé di taw mu ne gis nga ba ñuy ñibbi keroog dañuy yëkkati suñuy rëy ngir ndox bu bari ci biti Moussa moom nu mu maanaam bokkul naa la boole naa la bokk néeg bi Moussa dafa ñaan yàlla mun ne ko demal ci bokk néeg Seydina Muhammad nag directement Moussa bu taxaw ne niiri tawal niiri luñ koy wax amuñ ci ndigal waaye Seydina Muhammad mu ne ko tawal mu taw si alayhi salaatu moom mooy taw moom mooy taw di taw di juróom-ñaari fan nee na gisuñu naaj di taw di taw yu tàng sa ani na mu ngi taw màkk nag ak niiram yu métti allah nee na ba ñu nyari ci juróom-ñaareelu fan ba semaine ba ajuma ja bi taxaw di khutbah, nee na way waay Amnanya am na ñu ne même waa ji la waaye fii waa ji taxaw ya la taxaw ci ya rasulallah may ma trop ndox bi mu ngi yóbbu suñu kër yi di yóbbu suñu naako yi di yóbbu suñu tool yi wax ci gaaw bi xawaalee na xawaalee na ne boobu boo xoolee ci biti doo gis dara ngir taw ak niir waaye ba mu yëkkatee loxoom balaa muy wàccee loxo nee na ñu gis mu leer naññ ndox bi arrêté na takk defe naa loolu dina ci taw yi nga gis taw bu ne jur la de ba na bu ne tekk benn toxu tegatu ci ak a ñoo dégg ndigal <laughs> ko am militaire yu mel ni militaire yu yàlla yi fii gars yi moom bu bu ñu kuulee fii ba nga ba ñu tee si nga ne ko doy na doy na doy na <laughs> heure bi ngay wax naan doy na doy ci la ñu a sotti <laughs> waaye gis nga yàlla ba mu woowee yonente bi ba mu woowee ne doy na malaayka yi ne teg ku ci ne nga arrêté taxaw parce que yonente bi nee na gis nga tokk ndox boo ci gis benn malaayka moo koy indi teg ko ci kaw suuf départ dem du indi beneen de comme nu ñuy def rootu paan bi dem indi paan indiwaat demaat ñëwaat. Euh, toq boo gis malaayka moo dem tibb ñëw teg ko dem taxawe tejal moroom yàlla bari militaire <laughs> hada huwa rasulullah ku ko mas def ci yonente yi bi maanaa waxuma tasarruf ci li la woon waaye di def tasarruf fil kawni hada huwa rasulullah wal moo tax mu ne kabla lu jiitu isdaal li muy wàcce alkafeeni ñaari tënkam na daahu nee na taw ga ka alxadim nee na fes tell digg màkk digg madinatu munawwar nee na wa faaratil miyaahu min faydi asaabiihi suqyan li jumooen kulluhum sadi sadi moom mooy mar wa faarat nee na fuur si na fuur si faara ya fuur mooy fuur si waaw xam nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne gis nga ndoxu zamzam ba muy génn si ci tànk Ismaayla nee na xaajara ba mu gisee seen ndox mi rek dafa daw rek commencé di tibb yonent bi nee na gis nga bu ko bàyyi woon pul pul lay bugg di def ci kaw comme fa waara day gars yi di def ci seen gis nga dafay pul nii robinet yooyu mu ne noonu la Zamzam bugg di def waaye yàkkamte rek moo tax yàlla fa yemale ko fa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu àndeek saxaaba yi ca tisibaar ga mu noppale ko ba jukk ne may ma ndox ma jàpp ñu indil ko muy jàpp noonu muy jàpp mu ne waa ana gaay gisuma kenn de aca kaay la ñu julli bo ñu ne ko yaa rasulallah fii de ndox amu fi de bi ngay wax nañu wàcc fii dañ la ko ruusoon a gàntal parce que loo ñu wax rek duñ ci teg baat waaye bi ngay wàcc fii boo fii amul ndox gis nga fii ñu nekk caravane bi te mu ne matoon nañ ñe téeméeri téeméeri naka arbaata achara alfan fukki junni ak ñeent mu ne ñu nekk nii ndox bii ngay jàppee kese moo kese bii rek moo lu dul ndox bii ndox amu fi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waxal gaa yi ñu pare ba indi seen paan yi nañ indi seen paan ñi am barigo nañ indi seen barigo ndox a ngi ñëw xanaa gaa yi xam naa ñuy yaakaar rek asamaan tuuru si yonent bi sallallahu jël loxom yu tëdd loxom bu tëdd ba dugal ci biir ci biir ndab li ba mu dugalee ci biir paan a yi ne ñu gis ndox bi ñu muy génnee ci diggante baaraam yi pul pul mu ne ñu jël pot mu ne tibb leen gaa yi di tibb di root di root di root mu ne naan nañu gëlëm yi naan yemuñu ci ñu sol ci suñu barigo yi sol ci suñu ngise yi yóbbaale sallallahu alayhi wa sallam moom la ba mu soxlaa ndox nu mu def dafa dem dóori xeer wa waaye Seydina Muhammad nii la def rek alayhi salaatu wa noonu nga ko fekkee itam ay yoon yu bari la am na armée bu ñu masoon a ànd itam ñu dem ba ci digg yoon mu jàpp ba pare rek mu ne acca bokk seetal gaa yi ñu ñëw ñu ne ndox amu fi de lii rek moo fi nekk mu ne xanaa teen bi amul ndox mu ne teen bi li ci nekkoon gaa yi ŋàcc nañ ko ba jeex na mu ne indi ndox mi ñu indi ndox mi mu dema dem ba ci teen ba jël ndox bi am baat yu mu ci wax sotti ko teen bi fuur si waaw teen bi fuur si gars yi di root roota roota roota root teen boobu noonu sax dañ ko defoon kii maanaam euh, bàyyi ko fa parce que mujiza la min mujizati rasul gars yi dañ ci doon naan bu ñu jóge woon kii seen aj bi nii après fa doon naan xam nga rek ko soo dégg gis nga yooyu yu bari bari dañ koy jël faagaagal parce que dañu wax naan yi affaire mën na def shirk ak yu mel noonu voilà waaye ba mu nga fa woon sallallahu alayhi wa sallam kon pour woon la ne <clears throat> waxuma yonente bi waaye ay taalibe yonente bi sax def nañ Abdourahman al Jazuli borom dalailul xayraat lu tax mu taalif ko lan moo tax mu taalif ko salaatu ala nabi bo dafa demoon ci àll bi ci sibaar jot mu bëgg a julli mu waaxu ñëw ci teen bi bi mu ñëwee ci teen bi pour gis nga ko pour pour am ndox mu ñëw fekk fa baak mu xool-xool gisul baak mu wëlbati ko di defar pour mën a tiim comme amul ndox xam nga xàttee ko amul ndox la mu bëgg a tiim nee non mu segg di tim rek mu gis xalé bu jigen bu timu ten dal li jël loxo bi rek def ko ni rek raxas jàpp be pare mu ñew ci ten bi fekk ten bi fef del bi toll ci fekk bu mu koy romb bu koy wax naan gis nga way yow li moy la mu ne ko mag bu toll ni yow lii la ko du mu ne xalé bu jigen mu ne mag bu toll ni yow Abdourahman Jazuli mu ne ko mag bu toll ni yow ak fi la nit ñi tekk nga ñëw ba tiimun teen buggu ndox naan da ngay xaar bàq ba mu tax nga naan da ngay dem tiimi jël ndox bi nii la def loxo bi rek ndox bi génn fees ci ci gémmiñu teen mu ne ko yow fii martaba bi foo ko amee mu ne ko salaatu ala nabi ci la taalifee dalailul xayraat nga xam ne bés bu nekk dafay am lu julli ci yonent bi sallallahu kon waxuma yonent bi waaye ay taalibe alayhi salaatu wasalaam moo tax mu ne la gis nga ko wafaaratil miyaa min qabdati min faydi asaabi suqiyan li jumoyin amilina suqiyan nandal kon wafaarat nee na fuursi na almiyaa u ndox mi min faydi ci yolle asaabihi ay baaraamam suqiyan di nandal li jumoo en mbooloo amilina ñëpp moom lañ yaakaar kulluhum koo ci gis sadi mu nga mar moom yonente bi keroog moo leen may ñu fa aadu nee na ñu ñibbi mutabashirina ñu ngay bég zawadu dal di feesal jiraabahum seen ndaal ya mooy seen gise ya mutanaimiina di xiiwlu xaqan ci dëgg-dëgg nag shaakiriin allah di sant yàlla humma dint di koy gërëm naan nañu waaye ndox bi am su moo tax saxaaba yi yonente bi nee na kenn ci yéen bu jëloon montagne Uhud alal joxe ko sarax pour woon la ne sarax dafa bëri tiyaa mu ne bu ko defoon nee na jot kenn ci sama saxaaba gënawal sax wala nasiifo loolu mu ngi ko woon Xaalid ibnu Walid boobu Xaalid ibnu Walid moog Abdurahman ibnu Awf dañu gis nga ko lonkante woon ay baat bi xaw a histoire ñu ñëw ci yonente bi boole si yonente bi wax Xaalid na ko bàyyil gaay sama gaay mu ne sama saxaaba yi loolu xaw ma noo koy firé na xanaa ñoom Xaalid duñu ay mu ne ko sama saxaaba yi mooy ñu àndoon ba muy tàng mu ne kenn ci yéen ak loo mën a def parce que boobu Xaalid def na jihaad bi ñaw na ah parce que góoru bañkat law nag bila eh, mu di xaalit xaalit moom histoire moom yaay bañ ah moo tax mook Seydina Omar mook Seydina Omar moom <laughs> ay bant lañ doon laalante de wala de parce que ku ci nekk amul caaxaan de te noonu la ko defee nag mook Seydina Ali itam moom bila moo xaalit <laughs> xaalit moom nitu histoire law waaw parce que moom moom gis nga ko waaw moom xeexkat la waaw moom xeexkat xeex maanaam tabiatuhu hakaza waaw xeex rek moom lu dul xeex moom xeex nga ko gënal dafa am ci ay nit waaw lu dul xeex xeex ko ko gënal góor bu toll nii di lekk di naan xam nga pour lan muy lekk di naan di def sport am guddeeg bëccëg pour xeex rek xamu leen mbor yi <laughs> lan moo tax muy def loolu yëpp pour xeex kese ngoon lemm gaa yi tiimu ko caméra yi tiimu ko ñëpp ñëw kaay leen damay xeex waaw ah, mbër xeex rek moo tam foo demee ci bërëkat yi ay nitu xeexkat lañ boo leen xoolee ba ñu nekk xale ci mbedd yi xeex rek lañ doon def bërëkat yi waaye dafa am ñoo xamante ne nag histoire moom dara lañ ci waxul bés boo paree histoire boo bëggoon mu jox la un milliard na dem toogi ci jàmm def ko waaye am xamante ne da ngay am histoire mu ne jaay ma ko jaay ma xuloo bi jaay ma histoire bi ah. jaay ma histoire ba jël histoire non non histoire daw ci dara ba mu ko defee nag ndeysaan ku mel naka ñoom ñoom Xaalid ak ñu mel noonu ci saxaaba yi ba mu histoire Abdurahman ibn mu ne ko sama saxaaba yi bàyyi leen leen kenn ci yéen lu mu mënta def ci tiyaabu mënta dab seen gënawal moo tax ci jamono bi amul loo mën a def ba jot saxaaba yi saxaaba yi du ñu ay morom waaw sëriñ boo fi gis wali boo fi gis mu ngi ci tànk saxaaba yi saxaaba yi ñoo leen gën foofu waaw radiallahu taala an yàlla gërëm ñu leen hakada firiwul nag li gaay ñenn ñi li ñuy wax ne kullu saxaabati odulun laysa al amru kadalik laysa kullu saxaabati odulan du saxaaba yi ba baaxoon de déet déet dañu wax ne saxaaba yi ak baax nga globale ko comme ni nga waxee ne Sénégal eh, ak ñoo man teranga am nga nga koy waxee wala nga ne Gambie ñu deret pourtant amna na Gambie yu neex deret wala déet amna na Sénégal ñoo xamante ne xamuñu teraanga waaye da koy globalé naka no da nga wax saxaaba yi ak ñoo baax way amna ci ben ar ben ben de Alxuraan moo ko tuddee injaakum du saxaaba saxaaba la ko tuddee faasikun Seydina umar la la wax ñu yadkhulu alayka alfaajiru wa salihu wala asaalihu wa taalihu nee na ku bon dana dugg ci sa kër ku baax dina fi dugg wala de hakada kon am na ay saay-saay ci biir saxaaba yi amoon na kon ñooñu du ñu wax ne ñoom ñëpp kulluhum udullah laysa kadalik te léegi da ngay gis ñoo xam ne dañoo wax naan ah kay kullu sahabati udul laysa la abu kadalik ñoom ñëpp amoon na ci benn bi ñoo xamante ne bokkuñu si moo mu ne sama saxaaba kenn mënu leen a dab nee na ulufu jiyaain jaa'u lahu fa adaafahum bi qasaatin ajibatin istanmu wa tasdadi fa abu shibaan la yashkuuna tadawuran fa kullu haadi min shuaai nabii muhammadi alayhi salaam nee na uluufu ay junney junne jaa en ñoo xamante ne dañu xiif jaa u ñëw nañu lahu ci moom fa adaafahu mu gana leen moom de moo leen gànnaar am na boo xew ca gazwatu xandak ñu tuddee gazwatul ahzab kenn ci saxaaba yi waa ansaar yi bi yonente bi génn xam nga dafa génnoon madina pour ñu gas affaire boobu nag balagatal kulubu xanaajira boobu métti na de yonente bi am na ñetti fan yoo xamante ne lekkul saxaaba yi xiif ba métti na kenn mënu leen a dam fi ñu toog rek di naan suñu café di burda <laughs> waaye saxaaba yi <laughs> wala nañ sant saxaaba yi de fii lañuy toog di naan suñu café di naan suñu beñe te am tiyaabu waaye saxaaba yi seen bos <laughs> seen tiyaabu xaw nañu dee ñetti fan yonente bi lekkul yonente bi ni mu jógee noonu rek saxaaba bi nee na ma gis mu jël biir bi takk ko ndikite ay xeer la dugal ci biir takk ko pour mën a taxaw rasulullah sallallahu nee na ma daw rek dem ca soxna ne ko dara amu fi parce que yonent bi dafa xiif de maa ko gis mu takk biir kashaan mu tarafal adab ne ko burda wax a ah, mu ne ko fii de pour lu xale yi añee rek moo fi nekkoon te bariwul mu ne ko may ma ko rek xale yi moom nax leen rek defal leen dox noonu ba dañu kii rek dañu fàtte ndax ñoom fu ñu dem rek mën nañ faa lekke xam nga xale moom bokkul ak mag xale kër gi danañu togg sax gis nga ko waaw xale kër gi danañu togg kucuur rek mooy mooy domada mu bàyyi ko fi dem beneen kër lekk ceeb waaye mag ji mën na ko moo tax xale mu xam nga xale moom dafa texet yoonam nekku ci dem beneen kër xaar foofu ceeb mag mën na ko mag mën waaye xale moom yoonam nekku ci moo tax yéen li ngeen di lekk ak li xale yi di lekk du benn de xale ñoo leen a baax le bool léegoo rek ñu dem ci gis nga ko gars yi rek paa ci kii mairie ci <laughs> gis nga ko taxaw rek benn bool bu baax génn si <laughs> moo tax da tere ba sonn ñuy dugg ci dëkk bi <laughs> ak bool wala taalibi Seydina Isa bi la la ñuy laaj andil alayna maidatan bool rek bool taalibi ak bool fii ñu toog ne bu bool ne tel fii bool yàlla yàlla yërëm taalibi rek yaa ngi naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ko toog mu wax ko ndaw si ne ko préparé ma tuuti rek nga na xale yi dañu nelaw ñoom fu ñu lekkee baax na parce que bu demee ci dëkk bi mën nañ faa lekkee waaye préparé ko après nga tegal ma ba mu préparé ba pare mu dem ci yonent bi mu ne ko yaa Rasulullah mu ne ko naa mu ne ko damaa bëgg ñu yegg ci kër ga am na foofu xiwal tuuti nga xiwlu mu ne ko nga ne la mu ne ko mu nga fa nga ñëw rek pour barkelu rek mën a téye biir bi tuuti. yonent bi ne tel taxaw ne ma kontaan parce que dana ñëw lekk ma xam ne tey ji may ganale yonent bi sama kër lay lekkee maa ko jox lu mu lekk waaw ah, fierté boobu noonu ma kontaan tel jog waaye naka la jog rek ne yen gars yi ku ci xiif ñëwal <laughs> mu ne ko yaa bool bi bariwul <laughs> dal di daw jiitu dem sa soxna sa ne ko musiba xiw mu ne ko lan mu ndaw gàcc mu ne as bi bii kopp ñu préparer yonenté bi yonenté bi ak gaayam yépp nak ñu ngi ñew <laughs> fétal ma liir yonenté bi bi mu sétlo gisatul waji xélam bu reey ba mu dal di wax kenn ci saabi ne dawal nga ne ko cin la buñ ko yëkëti nañ ko fa bay ko fa bay dina mu dal di dugg si ci bir kër gi sahaba yëpp fess kër gi hé tay musiba dina yonenté bi yegg si ana sa bol mu ne ko mu ngi ni ana cin li mu nekk mu ngi nii ana soos bi mu nekk mu ngi yonent bi sala sala ma jël bool bi tibb ci cin li def jël soos bi teg woo fukki nit ne kaay leen ngeen lekk mu ne ma gis gaa yi dugal loxo yi di lekk di gaa yi di lekk waaye lu ñu lekk mu mel ni dafa am ay yeneen pepp yu koy ñooñu lekk lekk lekk lekk ba suur ma xool bool bi mu am lu ci des yonent bi jëlaat sottiwaat jëlaat ci ñeex bi teg soos bi teg tegalaat ne fukki nit kaay leen ñooñu itam naka noonu mu ne ba armée bi jeex takk ñoom ñëpp ñu lekk mu ne bu ñu lekkee pare moom yonent bi ci la door a lekk ndeesit boobu noonu ñun moom lañu añee maag samay doom waa fii nii moo ganale yonent bi wala yonent bi moo ko ganale moom lañ mujjee ganale wala moo moo doon ganale voilà parce que keroog lekk na te naruloon a añ jabaram lekk na te narul lekk ay doomam yëpp lekk nañ ba suur te loolu naruloon am sallallahu alayhi wa kon pour woon la ne alayhi salaatu wa salaam yëpp ay mu'jizaat la yoo xamante ne gis nga ko dafa doon xew xew moom moo tax mu ne ulufu jaan jaawu fa ada bi kasaatin ajibatin ci benn palaat bu yéeme istanmu di yokk wa tasdadi même gis nga ko euh, ki ñuy tuddee euh, abu abu al ghafari mu ne ñun bu ñu xiifoon xam nga ñoo nekkoon ki ñoo nekkoon ci wetu yonente bi noonu lañ tuddee ahlu suffati mooy taalibe yaa xam ne wala tatrudi alladina rab bo ñun tudd ci jumaa ci wetu yonente bi bu yonente bi di xeexi ñoom ñooy njëkk taxaw premier rang bu yonente bi yegsee dugg ci néegam ñoom ñooy toog ci biti di koy xaar maanaam ñoo nekkoon ci wetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amuñu woon kër amuñu woon ñoom tudd ñu ci wetu yonente bi waaw ki lay jiitu mooy Seydina Ali moom it dafa ahlu suffa Abu Dharr Ghafaari mu ne keroog na dafa am xew bu amoon ci dëkk bi mu ne keroog presque benn bool ñëwu fa parce que gaa yëpp a gis nga ko mu ne maa nga xiif a xiif seentu bool a bool ba sonn gisuma dara seentu seentu gisuma dara mu ne noonu ma toog rek ma gis benn jigéen buy dugg si ma am lu ma muur ah, ah, am na sens de mu ne ndaw si dal di yéeg si gis nga ko ne ana rasulullah mu ne ko mu ngi ci biir mu ne ko lii pour moom la moom laa ko indi mu ne ko ma yóbbul ko dal di yëkkati na bu ñu indilee sëriñ bi yekk bu baax yóbbu ko ba foofu ñeen dañuy wax ne sëriñ bi eh, soxla bi lii teg fee daf ko yóbbu ba ci moom de waxul ne xaaral ma teg bi parce que xam na ne itam dana ci laal wala déet mu dal di dox indi ba ci yonent bi ne ko ah yaa rasulullah bii de benn ndaw si moo ko indi nee na gis nga ko addiya la moo la ko indil yonent bi alayhi salaatu wasalaam dal di mooy xool ne ana sa gaay kan moo fi nekk ci gaay yi fi kenn nekku fi parce que mu ne boobu lu tuuti lii kañ na ma ko bàyyee lii kañ sama warsak la bu ko gaa yi fi mu ne ko fii kenn nekk ko fi mu ne ko demal seet leen mu ne fii maanaam ñoom ñëpp dañ dem fee ca xew ba kenn kenn nekk ko fi maa fi ne demal nga seeti leen na ma dem seeti leen laa dem gis nga xam nga léegoo léeg togg yi duy faral di mat te xam nga ñoom mënuñu xëccoo ak yooyu ndikete gis nga ko xew ba affaire bi matul lekkuñu fa nee na ma dal di ñëw gis nga ko am ñaar ñu ma dee ne kay leen wuyu yonente nee na ñaar ñoo ñu topp ma rek acca ñu commencé ne naka lañ départ rek ña des yëpp topp si ñu. Eh, bariwul bariwul bariwul jarul di ñëw. gaa yi njëkkalante nee na ma daw xeer yoo xam ne parce que bugg naa jiitu rek comme man sa la gaa yi bugg ko jiitu bu ma yegg see gis nga ñu ñëpp ñu taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloog ñu mu nga bool bi nii gis nga ko mu ne mu daldi xoola xool woo kenn ne heure boobu man rek ko maa fi jiitu te man maa. accueillir bool bi nag hmm. man la waroon a jox affaire bi mu ne waaye bu ma ko joxoon <laughs> gars yi kenn du ci laal may naan lépp waaye nag mu xool xool ci biir mbooloo bi woowu ma de mu woo kenn mu ne ko kaay kooku ñëw mu ne ko acca naanal nee na mu jël affaire bi jël kopp bi di naan mu ne maa ngi xool ba jeexalu ko ñaata moo ci def mais waa ji di naan di xëcc di xëcc te mu ne yaa Rasulullah mu ne doy na kii xiiful <laughs> kopp bu ndaw bi rek mu ne <laughs> laal ci nii tuuti rek ne ne kii xiiful nee na ma foog ne man la ciy teg mu woowaat keneen kooku ñëw mu joxaat ko même chose mënu koo jeexal nee na matoon nañu fukki nit gars yi mënuñ koo jeexal nee na biñ paree nag yonent bi daal di may xool nag muuñ mu ne ma acakaay yow yaam nee na ma def nii nag ma ne gars yi xiifuñu man maa <laughs> préparé gis nga ko ma jël affaire mu ma naanal. ne ko naan rek laa <laughs> laa xaaral rek nee na ma xëcc may xëcc affaire bi di xëcc affaire bi di xëcc bi affaire bi mënul jeex ma bàyyi defaraat sama tubéy bi xëccaat maa koy xëcc maa koy xëcc affaire bi mënul jeex waaw yonent bi ne ma naanal ma ne ko yaa rasulallah muy jaar fan lay jaarati <laughs> mu ne fees biir bi fees na dal mu ne yonent bi dal di muuñ <laughs> ne andil jox ma nee ma jox ko ko mu ne ko nii rek bu jeex sallallahu alayhi wa sallam hada rasulullah sallallahu alayhi wa moo tax mu ne gis nga ko ulufu jaan ay junne junne jaawu ñëw nañu lahu ñeel ko fa adaafahum mu teral leen ganale ganale leen bi atina ajiban ci palaat bu yéeme istan mu palaat bu yokku wa tasdadi di gën a yokku rek fa aabu ñu ñibbi shibaan biir ya fees nañu laa yashkuna jooyuñu tadawuran xiif فكل هذه ليب من شواي بكون تلمرير النبي يونت بن أحمد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم